jërë ngeen jëf mbokk yi taamu bàyyi xel seen télévision Touba TV fépp fu ngeen mën ci nekk ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu leen ziar waaye tam di leen ndokkeel ci guddi gu mag gi nga xamante ne ni ci la ñu nekk ah, mu di guddi gaab moo di guddi gi nga xam ne ku tedd kii di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni ngeen gi mbindeef ci la gane woon jamono tey itam liggéey ko nam ba dee xaadimu rasul Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba wax ca loo xam ne ni yaakaar naa ni ba léegi ah, xel yëpp a ngi ci bu ngeen déggee xasida yi nga xam ne moo di jolli ci sama ginnaaw ngeen xam ne Euh, ni nga xam ne la ko Serigne Touba màggalee bari waanul ay mbindeef yoo xam ne nii màggal nañu ko guddi gën ak jamono Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba tax moom ku tedd ki ak njabootam waaye tam mu njëkk a wax ne euh, màggal naa li nga xam ne moo di guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa ci atum assasine maanaam ci bu ñu xaymaa at yooyu la bari waanul ñu ko màggal euh, ci réew bu Sénégal nga xam ne Serigne Touba kon yàgg naa liggéeyal Serigne Yonent bi sallallahu alayhi wa mi nga xam ne nii moom moo di euh, jëwriñam ja ba tax xam ngeen ni mu tënk ci ay xasida yu bëree bëri way ci ay way yu bëree bëri yoo xam ne yaakaar naa ni bu ci murid sukkandikoo loolu le mën naa daj guddi gàmmu gi te yaakaar naa ni du sax jeex ni mu ko doon màggale nag ca njaareem noonu la santaane ñu màggale ko noonu tanzimuhu bi sunnatin sunna nag lépp a ngi ci biir lépp lu baax a ngi ci biir xam ngeen tam aada yoonu murit génnut jàng alxuraan génnut jàng xasida génnut jàng berne ndax si mu xoobi sunatin googu ni ko Serigne Touba waxee génnut ñett yooyu nga xamante ne nii moom laa tudd léegi ba tax xam ngeen ni njabootu Serigne Touba Cheikh Bamba Khadim Rasoul roy gi ñu koy roy ak roy gi Serigne Touba daan roy yéru seen sallallahu alayhi wa salaam day feeñ ci guddi gàmm gi nga xamante ni ci ñu nekk ba tax xam ngeen ni fépp foo xam ne nii njaboot gaa ngi fa ah, li ko tàmbalee ci xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mi nga xam ne nii soññee na ci guddi gi waaye itam jox ko itti ju mat sëkk waaye itam paste fu mat sëkk ma tax jamono ji ma wax ak yéen mi ngi fii ci biir résidence Xaadim Rasuul ci kuréel bi nga xam ne nii daayira Hizbut Tarqiyyah ci paste fu mat sëkk bi nga xam ne ni waña nañ ko ci guddi gi ak mboolem xalifa généraux yi nga xam ne nii jaaroon nañu fa ñu wane ca jooj la Pastef moom sëriñ bi mi ngi toog ci salle bi nga xam ne ni moom lañ ko fàggul ngir mu daal di fay toog déglu li nga xam ne moom moo di euh, mooy xasida yooyu nga xam ni nii jamono ji daayira Hizbut Tarqiyyah ñu ngi koy jàng fii ci euh, kër Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gi waaye itam xam ngeen daayira mu Xadimatul Xidma mi nga xam ne moom moo gàllu lépp lu jëm saytu jumaay Touba ji yemut ci loolu moom tamit tanzima xoo bi sunatin googilee dañ cee fekk si ki nga xam ne moom moo di ku tedd ki di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ma tax na gis ngeen am solo yi nga xam ne moom lañ ci def esplanade jumaa ji moom la ñu jël soppax ndiku ko def ko bërëb boo xam ne nii bërëbu euh, gàmmu la tey jii mën nañu ne gis ngeen ki nga xam ne moo di sëriñ Ahmadou Badawi moom moo yor li nga xam ne moo di njàngum Barzan mi ne xam ngeen daayiratu Rawdu Rayaahiin ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di Muxaddamatul Xidma dañoo def wenn say ngir àndandoo màggal li nga xam ne moom moo di guddi gi moo tax ne gis ngeen ñetti kuréel kuréelu gées bu kuréelu euh, mawaahibu ak mu muxaddima su ko defee bu kenn ku nekk jàngee euh, ci xasida gune fukki bayit ak ñaar su ko defee sëriñ Ahmadou Badawi daal di jël daal di jàng ab buntu ci Barzan ji ñooñu tam la koy daal di defee ci biir résidence Khadim Rasoul daayira mu xaddi daayira isbu sarxee mi nga xam ne tam ni ñu ko waxee woon euh, bi sukkarin aw bi la aw laxamin maanaam euh, joxe ay berne ci lu sa suukar ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu ndawal itam màggale nañ ko noonu màggale ko ci ay xasida kon yaakaar naa ne loolu moom moo nekk résumé bi nga xam ne tey ji moom moom la ñu mën a tënk ci résumé guddi gàmm gi nga xam ne ni ci la ñu nekk tey jii gis ngeen mbooloo mi foo sànni mbaat mu tak dëkk baa ngi fees dell ñi nga xam ne ñu ngi mën nañoo jàng xasida ñi ngi yor seen ay jukki di jàng ñi mën a jàng alxuraanul karim ñi ngi yor seen ay jukki alxuraan di jàng ñi nga xam ne itam mënuñu loolu lépp ñi nga yor seen ay kurus di zikkar turu yàlla ñi nga xam ne mënuñu loolu ñi ngi julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi waral guddi gi ñi xam ne mënuñu loolu lépp itam ña nga andi seen ay bernde di ko jox taalibe Serigne Touba yi nga xam ne nii ñëw nañ di ko màggal ci sunna ñi nga xam ne mënuñu loolu lépp itam ñi ngi ànd ci liggéey bi ñu yor wàllu sécurité bi ñu yor wàllu organisation bi kenn ku nekk daal jamono ji yaa ngi ci dara ngir guddi gi nga mën cee fës guddi gi nga mën ci am tiyaawa ji nga xam ne ni moom na suñ borom di képp koo xam ne nii julli nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam gëm nga Seydina Muhammad sak pay mu war laa fekk yowmal xiyaamatul akbar ga ñu jëm kon nag yaakaar naa ni ko Serigne Touba digle woon xol sedd na ci ni sëñ Touba digle woon gàcce amu ci ndax tanzimu xoo bi sunnatin googu sëriñ Touba doon wax ak njabootam tey jii ñi ngi koy màggal fépp ci àdduna wërngal këpp ci sunna soosule waaye itam ci li nga xam ne nii moom moo di ci jaamu yàlla yu am solo yooyu nga xam ne nii ku tedd ki di sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di liggéey yaa ko yonent bi moom moom le moom moo ko santaane woon kon xam naa dañ leen di ànd ak yéen ci résumé loolu wan leen image ngeen xool ful bi nga xam ne tey jii ma moo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba waaye itam ni nga xam ne noonu la ñu ko màggale ca Touba Belel ki nga xam ne moo di Serigne Cheikhouna Mbacké mu Serigne Abdou Lahad Mbacké ànd na ak mbooleem taalibe ye màggal ko foofulee bu ñu demee ca Touba ndigal Serigne Abdou Fatah Mbacké Falilou mu ngi ko fay màggal ak yenn gox yu fasantikoo yoo xam ne jabaru Serigne Touba ga ñu nga fa di li nga xam ne moom moo di guddi naa damay ànd ak sama caméraman Ousseynou Mbodj ñu wan leen li nga xam moo jëm ci temps fort su ko defee mu dellu siwaat ak mbokk yi la